suqali Kaolack waaw suqali Kaolack Ndiaye ma jóg na rafet. yéen a baa ngi dugg si. yéen a baa ngi noonu ndeysaan. sant bu jàmbaaru fàq tëdd. ñaari tubay. mooy dëgg tubay waaye ñaar mooy dëgg sa yi kuy ci kuy sa jaati alkaat. mu xaadi rasul. yéen ñëpp kenn ku di wax ne waa Jaleñ xam naa bett naa leen ci lii nekk mais lu mënta ñàkk moom il faut mu am ah waaw daf maa bett moo tax mais Pape Demba bi tey dafa nekk koo xam ne si man damaa bàyyi sama lépp depuis élection yi na tey damay tëj sama entreprise ñëw jàppale ko pour mu am ndam Kaolack da leen jibi yéen ñii damaa bëgg yéen ñi ma bëgg ñëpp bu bis ba jotee ngeen bàyyi lépp bi tey nii bulletin baa ngi ngeen wateel Pape Demba bi tey wateel Macky Sall ñu ba mu waaw en daal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp kontaan naa ah deuxième moo wax moo xaw a yàkkamti moo tax wax ci bàyyiwut xam ma jox sama mbokk taal waa Jalle voilà donc a allons donner la parole à la ah? boulangerie de Kaolack l'ami de la jeunesse l'ami des moyens Pape Demba Bitèye le soir de Kaolack est là l'homme fort de Kaolack est là l'homme qui fait le boss est là Pape Demba Bitèye à vous la parole Serigne Babacar Mbacké mu Kabaro suñu xarit suñu doomu ndey di également Serigne Moustapha Niass di imam Serigne bi ñu lay nuyu di la ziar mais euh, di nuyu également tous les responsables yi ñu fi fekk Vieux Guèye Dieynaba Diop suñu sœur la battante la lionne Dieynaba Tala t'as merci pour les mots Bienvenue également les membres de notre délégation Baba Ndiaye Khalifa Wade Khalim Diouf Baïnas, à tous les responsables de mais également de saluer suñu Khalid, frère. suñu doomu ndey muy Djibi Dia Sapronet dama ne yéen waa Léona waa Galeñ lii da si war a jàngate lu bëri mais Djibi Sénégal da ko intéressé Sénégal bu am jàmm daf ko intéressé Sénégal bu naat daf ko intéressé mais Sénégal buy jëm si kanam daf ko intéressé parce que moom c'est un agent et un opérateur économique de même que Dieynaba bi ngeen gis sama kon da ngeen di bàyyi seen xel xam ne bu ngeen gisee ñii ñu jël engagement wat ci terrain nekk en tenue de combat ça veut dire Sénégal toll na fu nga xam ne ñoom dañu obligé ne dañuy wàcc nag participer ndaxte fii Sénégal di jëm neexu leen fu ko ñenn ñu bëgg a jóobu neexu leen te war nañ taxaw à partir de ce moment xeex yóbbu Sénégal fu mu war a teg ndax sa wóor na leen ne gaal gi bu sobewul seen ëmb du sobe moo tax ñu jóg nekk en tenue de combat jël position ne nag dañuy taxaw si côté bi nga xam ne mooy côté bi bëgg a defar Sénégal ndaxte damay wax ne actuellement ñaari camp rek moo am benn camp bi nga xam ne dafa bëgg a continuer di tabax Sénégal ak camp bi nga xam ne dafa bëgg a bloquer Sénégal lu leen won ne dañu bëgg a bloquer mooy ñii di yuuxu yëpp di yëngatu ñoom ñëpp kenn bokkul si liste kandida, kenn nekkul candidat waaye dañu bëgg a jaxase xelu nit ñi wan leen ne lii élection anticipée la pour que bu ko defee ñu ñu dugal benn instabilité au Sénégal instabilité boo ne bu ñu amee suñu ressource pétrole ak gaz duñ ko mun exploiter duñ ko mun ndaxte kenn du tal Lol moo tax nag ngeen gis tey ñaari opérateur économique ne lol duñ ko nangu lol duñ ko nangu dañuy jàpp fu nga xam ne mooy jëm kanam kon bu ngeen gisee ñii nekk seen modèle nekk seen référence nekk seen doom nekk seen dëkkandoor nekk seen soppe jël position da ngeen dem ànd ak ñoom parce que ñoom ëllëg ñoom yéen ëllëg buñ ñëwaatee fii lañ leen di fekk kon buñ leen waxee ne yoon bi fii la te wóor na leen ne ñii duñ ngeen war leen topp léegi nag lu si des mooy ngeen xool xam ne élection yi gannaaw suba la lu ci des mooy dem leen nag jibi Jaynaba Taala ruq yu gën a tuuti ngeen dem seeti nit

maanaam dimanche incha à partir de 16h 18h 19h Djibi Diaw ak caravanam di fêter la victoire Dieynaba mun a rombaat fii ak caravanam di fêter victoire ñi nga xam ne dañ doon tëdd di nelaw di gént rek ñu yee leen nag ne subateel jot na jant bi jóg na yeewu leen lii mooy Sénégal senegal jàmm la ñu xam asalaamaaleykum wa Sénégal su ma ko wooyee moo di nga ko jooy jàkkee si ko ñi di nga ko yëkkati ba ca kaw a kaw waaw moom itam na a ànd maa ngi leen di ak seen sant temps jeex na wax bëreetul jëf moo des suba gannaaw suba incha allah kese ak yàlla kese ci seen urne yi a xam ki ngeen di tànn waaye ma ngi di ñaan li lay suuri fekkee Kaolack ñor na leen te bu ngeen Kaolack dem ci kanam otel leen Pape Demba bi lum lay wàññi khi la bañ nga doo ko ñaan lum lay wàññi di ko may ba tey ku bëgg sa yaay ajal sa loxo ca kaw ma xool gis nga ku ci kàccu yàlla nga gisee sëñ Mbàkke soxna loo ana waa kër Sëriñ Bamba seen loxo ca kaw di ko may alaaji Vieux Gueye laay la la Vieux Gueye Moussa dem bëgg ji bi ja leen yi am yow jógal taxaw taalibe maam Alaaji Maalik mu kër dara maam ardo maam ku bajaam xanaa jiw bi am taalibe de